ci bambali amal xarma yalla amul fépp fuma jaar duguna fa dugg bu rafet genna fa genn bu rafet alhamdullilah waye nak na leer c'est la première fois ci sama carrière bama débuter ba légui ma ngi ak label na leer lool nak dafa am ño xamanteni ñu bari peut-être ils sont pas au courant de ça bima dalé sama carrière ba légui c'est la première fois mooy signé te ci góor te ci jëriñ moo ne la tàmbale waaw. donc suba teel c'était pas tout ci contrat. amul contrat The Best am contrat. binakatagkat kasi sinego. Nagkakaroon kayo sa mga ito sa kami. Bibigay ako sa kito muso signé ci benn label. C'est la première fois que signé ci label Guérigami Production. ñu xam la déjà nga bokk ci famille boo xam ne famille formale la macha allah sa papa nekk waykat waaye seen nijaay aussi si côté yaay borom mille mélodie mille mélodie nekk aussi waykat donc yow lan moo la poussé déjà premièrement ak nga signé ci label Jérémy lan mooy say entente parce que tey boo demee ba ne c'est la première fois nga signé donc toog nga xalaat xalaataat lan ngay xalaat si Jérémy Ngoné loo xam ne amul woon sa carrière pour mu mottali ko les attentes. waaw tout d'abord euh, wax naa ko au début yàlla dogal na ne Jérémy Ngoné moom xam nga def na ay exploit def na ay preuve fii ci musique def na ay preuve preuve fii ci culture Sénégal bu Sénégal macha allah euh, fa ma jógee nag comme ni ma ko waxee expérience laa ko jàppee ndax ku ci mel ni Baba Amdi boobu ngay wax borom mille mélodie sama nijaay la moom sama yaay bokk ndey ak baay kooku sekkuma ak moom signé contrat ba léegi studio bi mu ngi foofu sama kër la nekk fii studio bi mélodie nekk bu Baba Amdi foofu laa dëkk. su ma sentiree dem liggéey leneen ak leneen pour denc loo xamante ne ça me concerne su ma ci waxtaanee samay dirigeant dama ciy nekk ndax studio bi mu ngi sama biir kër fa laay sama baat fa defee lépp loo xamante ne moom la artiste ci la war a ne xam nga jëriñoo ne nag mu ko ni ma ko waxee dafa fekk Bambaly ci yoon bi mu gis euh, peut-être repéré na yi di ko fenen am yene ci bambali yalla yalla na teni sen yene lolou lay wax te man li tax ma am fit bi am confiance bi man signé pour la première fois ak Jerry Ngoné dafa fekk ni comme ni mu ko xé sama bir keur la dugg comme ni ñu mëne wax keur Baba andi wala keur wali sekki di sama ndax jeri maag ay mbokk lañu que ce soit clair ay mbokk lañu maag moom benn deret bi la maag jiri sama papa Kéba gis na génération bi machallah nu ñu ko def ñu ngi naan je dalala <laughs> xam nga mais loolu yëpp buñ koy wax c'est parce que gis nañu pas yi papa keba di def ak exploit yi mu def ci musique ba tax na kenn mënu ko kenn mënu ko génne ci musique sénégalaise macha allah mais loolu tamit buñ ko waxee vraiment mënuñu remercier ku dul Jëri Ngoné mi nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw kon mën naa ne Bambaly Seck bu ñëwee loolu bu ci yàlla àndee sénégalais yi jàppale ñu ànd ci je pense que woon gisuma lan moo ñu tere atteindre suñu objectif te man lépp lu may def dama ciy waxtaan ak samay waajur ku ci mel ne sama papa Mapenda Seck mu ngi ba France chaque jour que jëfee ñu ngi déggante via WhatsApp lépp lu may def lépp lu may waaj a dugg dama ciy waxtaan ak moom mu wax ma ci xalaatam wax ma ni ma ko gisee sama yaay Ramatulaay Njaay chaque jour que jëfee ci lépp lu may dugg ma waxtaan ci moom mu wax ma xalaatam ma ñëw nag ci ñi nga xamante ne mooy suma staff bi nga xamante ne ba ma tàmbalee sama carrière ba léegi ñu may gunge. vraiment ñu doon ay jeunes yo xamantene dañu bëgg Bambali gëm ñi ñii awma seen fay ndax buma yexé fi tay gannaaw yalla suñu borom ñom la mënuma nekk na di lim seen tour machallah mais yalla na yalla fay wa li tax ma am confiance au signé ak jërgoné pour la première fois ak la belle euh si c'était à refaire dama koy défat duma hésiter hésité ndax waxtaan naa ñi ma wara a waxtaanal et puis gis na né sama kër la ñëw gis na nañu liggéey ku xam maam Cheikh xam ne dafa bëgg li muy def xamul lu dul liggéey fii kenn mësu koo gis ci détail du dugg ci ay détail xamul dara lu dul liggéey te li ma ci gën a marqué mooy day liggéey ak nit ki te du séntu ci yow dara moom li ko ñoom mooy Sénégal ndax doomu Sénégal la ñëw Sénégal yàlla baax la ko mu ñëw investir ci musique sénégalaise ci culture sénégalaise macha allah. ñu koy ñaanal jàmm fa nak ak bu yaram wa loolu kessa la vraiment. univers info univers. Assalamualaikum, Presiden. Saya Pak Indra, Info TV. en fait euh, question bi ma amoon pour la ko mooy si sa communiqué bi da nga wax ni le fait que nga transhumé ñëw ci euh, studio Thierry Ngoné c' un moment émouvant dama ko doon wax pour nga expliquer ñu lu tax nga def ko c'est un moment émouvant le fait que nga nekkoon kon benen label yaa ngi doon rêvé label bi mais c'était pas à 100 waaw demé wul demeewul sax c'est juste que boo déggee lu tax ñu souligner loolu mooy maanaam def ci am lu ci bëri lu ci laxasu nee naa la. affaire famille daf ci jiitu ba pare mbirum famille daf ci jiitu ba pare ndax su ma kër deret laa ñëw xam nga euh, samay waajur li tax ma ne c'est émouvant mooy vraiment musuma collaborer ak label déjà di jéem a def conférence de presse wala mu demee noonu parce que ñi ci impliqué wul dañu doon ay nit yoo xamante ne dañu sori lool ci man yàgg ma accompagner ci suma carrière moo tax li tax ma ne c'est émouvant dafa am lu ma jot a échanger suma papa bi ma jur muy ma benn sëkk yàlla na yàlla guddal fanam am lu ma jot a échanger maam Cheikh ñu naan ko Jéeri Ngoné li tax ma ne c'est peut-être mënuñu xuus carrément ci lépp lépp lépp ndax mën na jël temps mais li xam naa li tax ma ne c'est

waaw cofeel bi nga xam ne am euh, yu bëri euh, koy nuyu suma grand frère Wally Seck ah loolu moom boo nee dama am cofeel ci moom moom boo moytuwul fa nga toog sax est-ce que duma la laal 500 mille léegi fii nga toog <laughs> vraiment mu doon mag ju baax. doon mag jóg xamante ne ku yërëm ay rakam ah euh, yàgg maa jàppale nag yàgg maa jàppale xam nga comme ni ma ko waxee ni may xoolee benn Baba Amdi laay xoolee benn waal yi sama kër la Wally sekkuma moom signature am na sama benn clip boo xamante ne ñu ngi naan influamento Farmare production ñoo def clip bi ñoo def ñoo financé lépp man nii damay soxla dara dem ba ci sama grand frère waale ne ko lii laa soxla te daf ma koy defaral kooku suñu sekku ñu ay signé ci label wala dara bu ma sentiree dara am na ma fa def xam nga waxtaan ceeg li mu ci war a waxtaan dem def ko fa ndax foofu tamit suma kër Jericho ak Wally tamit benn la Keba Seck Wally benn la ndax mooy bàyyam kon boo seetloo maanaam génn ñu ci famille bi ba tey génn ñu ci famille bi ndax Wally Seck am yifi bopom jiri ngone amna yifi bopom boppam mais teewul ñom ñoom ñaar batay dañuy liggéey dañuy collaborer kon mën na ne génn ma ci kër gi dañu koy ñaanal yalla ko yalla xari aljana yi gëna kawé kawe suma papa Thione Ballago sek vraiment ñu doon ño xamantene ya. sama xarit lañu won ñu bëgg ma torop Mama jaga vraiment doon go xamantene dañ amul complicité ya. dafa ma yeboon trop nag vraiment parce que xam nga voilà euh, dafa doonoon lu lu profond maag moom sama diggante moom xam nga mu doon loo xamante ne bon touché na Sénégalais yëpp touché nañu ñun ñëpp ñu koy ñaanal bu baax fa euh, maa ngi waajal nag li nga xamante ne mooy hommage bi nga wax loolu nekk na suma bopp ba pare ba def naa ci ay pas def naa ci ay pas te loolu Bambaly ak Diéry Ngone dinañ ko eggale ci kàttanu yàlla suñu borom.